أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا لقن lisaani waxlulan minhu loqat wa jaalhu zakiran wa shakiran abad mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen balu àq te di leen baal di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal ni ñu baaxoo ànd ak yéen ci ay bis bu jot di fàttalante ak yéen ci lenn ci mbindum sëriñ bi radiallahu anhu ñu doon ànd ak yéen ci téereem bi nga xam ne moo tudd Munawwiru Sudur ñu ko doon jàngatandoo ak yéen ba tolloon ci ci bunt bi njëkk nga xam ne fi la sëriñ bi doon wax ci li aju ci xisma yi diin muy ñaari xaaji diine suñu bindub tey nag day continuer rek ci fi nga xam ne foofu la ñu taxawoon ci bind bi weesu te bind bi ci topp moom la sëriñ bi tudde faslun fi tawbati mooy bunt bi nga xam ne ci la sëriñ bi radiallahu anhu di jàngale tuub ak naka lañ koy defee tuub ak naka lañ koy defee bunt bi nga xam ne moom la ñu bëgg a jàngatandoo ak yéen bëgg koo fàtt leente fàtt leente ak yéen ci tuub la ñuy jàngal naka lañ ko war a defee ak tuub moom mooy lan ndax tuub buñ ko waxee mbokk yi mooy dellu ci suñu borom bi subhanahu wa taala ginnaaw ba nga xamee ne jaam bi def na bàkkaar ginnaaw ba jaam bi defee bàkkaar moom mii moo xam ne def na bàkkaar dellu ci suñu borom bi subhanahu wa taala toroxlu ci kanamam jéggulu ko waaye it dogu ngir bañ a dellu ca bàkkaar ba loolu mooy dëgg-dëgg tuub sëriñ bi tàmbali ne fa tawbatul insaani tuubuk doomu aadama bi wajabat war na fawran ci lu gaaw nadaamatun moo di ak rëccu ala zunubin ci bàkkaar xajabat goog yiir na ko xayso asa fu mu fi moye min xabli ilmaamil aza ci njëkk wàccug loria fa innaha naka moom laysa bi tawbatin déet mu di ak tuub isan boobee sëriñ bi radiyallahu anhu ne na nit ki de ak tuub lu war la ci moom saa boo xamee ne nit ki def na bàkkaar li nga xam ne moo war ci moom de mooy mu tuub waaye tuub gi itam daf koo war a gaawe daf koo war a gaawe waaye warut a def bàkkaar nekk fa di niig niigal ba ay lor fekk ko ca mu doog a tàmbali ni day tuub loola doo si ko nungu kon nit ki su fekkee ne dafa def ay bàkkaar war na ci moom mu tuub waaye nag nan lay tuube mooy na tuub ci tuub gu gaaw a gaaw a gaaw a gaaw niki noonu tamit su fekkee ne dafa bëgg a tuub na rëccu li nga xam ne mooy bàkkaar bi nga xam ne moom la defan moom doomu aadama bi kon nit ki na tuub ci ak gaaw waaye na tuub rëccu bàkkaar bi nga xam ne moom la defoon te bañ a bàyyi ba waxtu woowee romb ko wala bañ a bàyyi ba nekk ci ay jafe-jafe dooga wëlbatiku di tuub ndax yooyu yëpp day tax suñu borom subhanahu wa taala mën naa ñàkk a nungu tuub ga kon suñu borom ci yërmandeem day bëgg doomu aadama bi su defee bàkkaar wala mu def njuumte loo xam ne daf ko war a tuub mu gaaw tuub ko ndax loolu lu war ci doomu aadama bi la mu def ko te it bokk na ci li nga xam ne mën naa musal doomu aadama bi kon bul bàyyi ba def bàkkaar toog nekk ci sa bopp ba gis ay lor mu tàmbali di wàcc ci sa kaw nga doog a tàmbali ne da ngay tuub wala dem ba waaja waaja faatu wala yu demee noonu dem ba ñàkk yaakaar ci sa bopp doog a tàmbali ne da ngay tuub loolee bu boobaa mën na la andil jafe-jafe waaye mën naa jure tuub goo xam ne mën nañ koo bañ a nungu kon nit ki saa bu defee bàkkaar la nga xam ne moo ca yell mooy ne wëlbatiku ca saase daa di tuubal suñu borom bi subhanahu wa taala waaye réccu bàkkaar bi nga xam ne moom la doon def moo tax sëriñ bi ne fa tub na nga tuub li rabbika ngir sa boroom alali may aji kawe xawfal maqaami ngir ragal bisub taxawaay ba wala tu axirha bul ko yeexe moom tuub linti lil li ilmaamil intixaami ngir xamuk fayantooga sëriñ bi nee na na nga tuub soo dee tuub rek na nga tuub ngir sa borom bi subhanahu wa taala rek na nga ko def ngir yàlla rek waaye na nga ko def ci ak sellal waaye na nga ko def ngir ragal ëllëg bis ba nga xam ne ñëpp danañ ca taxaw te képp ku jëfoon jëf jooman di jëf suñu borom bi subhanahu wa taala dina la ko woon dina la won li nga xam ne moom la moom nga jëfoon ci àdduna ci ay njuumte waaye ci ay bàkkaar su fekkee ne tuuboo ko kon boo boo amee bàkkaar wala nga def ay njuumte gaawal nga tuub ko waaye bul ko yeexe mukk bul ko yeexe mukk ndax suñu borom subhanahu wa taala dafa bëgg doomu aadama yi di tuub di dellu ci moom ndax suñu borom xam na ne doomu aadama yi faw ñuy def ay bàkkaar waaye nag bu ñu ko defee ba pare nañu wëlbatiku tuub jëm ci moom suñu borom subhanahu wa taala ndax dañuy wax ne doomu aadama suñu borom daf ko bind waaye bind ko ci ak matadi kon comme ak matadi nag ci la suñu borom subhanahu wa taala binde doomu aadama yi faaw ñuy def jëfi matadi kon jëfi matadi yooyu nga xam ne moom la ñuy def bokk na ci bàkkaar yi nga xam ne moom la ñuy def waaye nag bàkkaar yooyu ñuy def la nga xam ne moo ñu cay musal mooy di tuub di dellu ci suñu borom subhanahu wa taala ndax suñu borom dafa bëgg. jaam ñi di def ay bàkkaar sax di tuub di dellu ci moom kon képp koo xam ne def nga bàkkaar la nga xam ne moo ci yàlla rek mooy wëlbatiku dem tuub tuubal suñu borom waaye réccu bàkkaar yi nga xam ne moom nga doon moom nga doon def ndax malaaka yi bi nga xamee ne suñu borom subhanahu wa taala dafa bind doomu aadama yi di leen wàcce ci kaw suuf malaaka yi daf ñoo dañoo laaj suñu borom ne ko ndax da ngay wàcce ci kaw suuf ñoo xam ne dañuy yàqu suuf si di fa rayante mu ne leen xam naa lu ngeen xamut xam naa lu ngeen xamut te suñu borom subhanahu wa taala su fekkoon ne dafa bind doomu aadama yi wàcce leen ci kaw suuf ñu nekk fi te duñu ko moy di jëfe ay digalam rek di ko topp nga xam ne duñu ko moy mukk loolu du loo xam ne moo ko gënal kon li gënal suñu borom subhanahu wa taala mooy nit ñi di def ay bàkkaar waaye buñ defee ay bàkkaar di tuub di dellu ci moom ngir loolu day gën a sàmm li nga xam ne mooy màggaayam gi waaye day gën a tax nit ñi di torox di jëm ci moom kon doomu aadama yi ñi ci gënal suñu borom subhanahu wa taala mooy ñiy def ay njuumte di def ay bàkkaar ba pare waaye nag buñ ko defee ba pare wëlbatiku dem di jéggulu suñu borom bi subhanahu wa taala suñu borom mi ngi wax ci alquran ne wa inni la gafarun liman taaba wa amana wa amila salihan summa ihtada naka man de aji jéggal laa ki nga xam ne moo tuub koo xam ne daal da ngaa def bàkkaar ba pare wëlbatiku tuub ko te bi nga koy tuub ak ngëm yàlla ak jubloo jëf lu sell rek moo tax nga tuub ko waaye it jubloo jubal rek moo tax nga tuub ko kookee suñu borom subhanahu wa taala dana ko jéggal lépp loo xam ne moom la def kon nit ki mënut a ñàkk di def ay juumte léeg-léeg mënut a ñàkk di def ay bàkkaar léeg-léeg waaye na bañ a naagu mukk mukk saa boo xamee ne def na bàkkaar rek la cay topp mooy na walbatiku daa di koy daa di koy tuub na walbatiku daa di koy tuub ndax su ko tuubee loolee mooy da nga xam ne mooy koy jariñ ndax suñu borom bëggut nit ki def ay bàkkaar di naagu naa suñu borom bi subhanahu wa taala du ko jéggal ndax suñu borom moo ne day jéggale bàkkaar yépp yépp yépp ba ci bokkaale sax nit ki su ko tuubee suñu borom subhanahu wa taala jéggal ko ko kon bàkkaaru bokkaale li tax ñu naa suñu borom bi du ko suñu borom subhanahu wa taala du ko jéggale mooy nit ki bu ko defee bala ko ko suñu borom subhanahu wa taala jéggal daf koo tuub te yeneen bàkkaar yu ndaw ndawaan yi nag nit ki mën na koo def suñu borom jéggal ko ko te du ko tuub loolu lépp nag ci yërmande suñu borom subhanahu wa taala lay dellu moo tax suñu borom di wax ne qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaxfiru zunuba jamian innahu huwa alghafuru rahim yéen jaam ñi nga xam ne da ngeen di yàq di def ay bàkkaar di tooñ seen bopp bu leen naagu mukk ci yërmande yàlla lu ngeen di defi bàkkaar lu mu bari bari lu bàkkaar yi rëy rëy rëy dee leen tuub rek tey dellu ci yàlla di jéggulu suñu borom subhanahu wa taala bàkkaar yi ngeen di def ndax su ngeen ko ko jégguloo suñu borom mën na leen a jéggal ndax moom bàkkaar bu doomu aadama bi mën di def ak nu mu mën di toll ak nu mu mën di rëy suñu borom subhanahu wa taala mën na koo jéggale ndax suñu borom bi subhanahu wa taala dafa bokk ci turam yi alxafuur mooy aji jéggale waaye daf cee bokk arrahim mooy aji yërëme kon nit ki warul def bàkkaar bàkkaar bi rëy fi moom lool ba tax mu ne mu naagu ne bu ma jégguloo suñu borom subhanahu wa taala du ma jéggal waaye warul def bàkkaar bàkkaar bi tuuti lool ba mu xeeb ko ne jarut ma koy jéggulu lii moom suñu borom subhanahu wa taala dina ma ko jéggal kon bàkkaar lu mu ndaw ndaw jéggulul suñu borom subhanahu wa taala te tuub jëm ci moom mu jéggal la waaye lu mu rëy rëy bul naagu it jéggulul suñu borom subhanahu wa taala mu jéggulu la mu jéggal la moo tax mu ne kon sooy tuub na nga tuub ci ak sellal rek waaye na nga tuub ngir ragal suñu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne moom moo ñu bind ci ak matadi ba pare ñuy def ay bàkkaar waaye mu digal ñu ñu tuub jëm ci moom moo tax sëriñ bi ne fa innaha naka moom tuub xëy na isin ca boobee laatan fa du jariñ wa in taqa ndeem tàbbi na nag min qablihi ci la jiitu loolu fatan famu mu jëriñ kon nee na yeexe gi la ne saa boo xamee ne yeexe nga ko ba ay lor di wàcc ci sa kaw wala nga yeexe ko ba daanaka mën nañoo wax ne naagu ci sa bopp bu boobaa tuub ga man mën na laa bañ a jëriñ waaye nag saa boo xamee ne def nga ko lu jiitu loolu maanaam gaawe nga ko jamono ji nga xam ne ci nga defee bàkkaar bi rek wëlbati ko nga gaaw daal di tuub dellu ci suñu borom subhanahu wa taala bu boobee loolee mën na laa dimbali bu baax a baax a baax a baax kon bokk na ci li nga xam ne mooy dimbali nit ki ci ak tuub mooy mu gaawe ko waaye su koy defit mu sellal ko bu baax a baax a baax a baax ndax suñu borom subhanahu wa taala dafa bëgg doomu aadama bi jëf ju muy jëf mu boole ci ak sellal moo tax muy wax ne yaa ayyuha allazina amanu tuubu ila allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al anhar yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla na ngeen tuub tuub bu sell na ngeen tuub tuub bu sell kon tuub bu sell goo xam ne dara raxu ko daray ngistal raxu ko waaye daray rëy rëy lu raxu ko waaye ak toroxlu rek mooy li nga xam ne moo koy laal waaye ak dellu ci suñu borom subhanahu wa taala ginnaaw bi nga defee bàkkaar rek mooy li nga xam ne moo ko lal nee na saa boo xam ne doomu aadama bi def na lool day xëy na suñu borom subhanahu wa taala jéggal ko yépp bàkkaar yoo xam ne moom la defoon waaye bu ko jéggalee ba pare mën na ko caa jaare tabbal fa nga xam ne mooy aljana kon nit ki bu defee bàkkaar nay xam li nga xam ne moom la ci suñu borom subhanahu wa taala digle lépp mu taxaw ca waaye gaawe ko bu baax a baax te bañ caa yeexe dara dara moo tax mu ne bil i'tiraaf yi tuub nag ki nin koy defee mooy nit ki tudd bàkkaar bi nga xam ne moom la def xam ne moom mii bàkkaar sàngam la def wan na daamati waaye mu rëccu bàkkaar bi maan ànd ak tudd ga nga xam ne moom la ko tudd maa tadarroin ànd ak toroxlu li waaxidin ngir yàlla mi nga xam ne mooy kenn xat xamaa gopp notal nañu noon yépp ne na kon nit ki suy tuub ni mu koy defee mooy na tudd bàkkaar bi nga xam ne moom la def wala na xam ne moom mii bàkkaar sàngam la def moom la bëgg a tuub waaye bu ko xamee ba pare mu boole ci ak rëccu waaye bu koy rëccu itam mu boole ci ak toroxlu ngir màggu suñu borom bi subhanahu wa taala waaye toroxlu ngir suñu borom bi subhanahu wa taala man koo jéggal kon ñett yooyu nit ki saa boo xamee ne dafa bëgg a tuub kon na xam bàkkaar bi mu def waaye bu xamee bàkkaar bi ba pare na rëccu li tax mu def bàkkaar bi te fas yéene bañ caa dellu waaye it mu boole ca li nga xam ne moo di ak ak toroxlu kon yooyu su ko nit ki boolee tuub dellu ci suñu borom subhanahu wa taala li nga xam ne moom la def suñu borom subhanahu wa taala mën na koo jéggal ci ay bàkkaar ñu koy misaale ne tuub mën nañ koo misaale mi ngi mel ni xalu sawara wu tege woon nit ki saa boo xamee ne joggi na ci xalu sawara wi booy teggi ab tànkam kenn du ko wax te it dana rëccu lu taxoon mu teg teg ab tànkam ci xalu sawara wi waaye it bu neexee yàlla du ca delloo ab tànkam kon loolu itam mën nañ ko misaale ne mu ngi mel ni mooy tuub moo tax mu ne fii xaali roksatin ci waxtu wa nga xam ne jàpp ne danag awitirarin wala ci ak loru bila tawaanin ci lu dul yeexee wa bila israarin ak ci lu dul nuur ci ay bàkkaar kon ne na saa boo xamee ne tuub jàppandi na ci doomu aadama bi rek na ko def waaye bu mu bàyyi ba nekk ci loraange wala bàyyi ba nekk ci ay jafe-jafe wala bàyyi ba nekk ci ay xat-xat dooga wëlbatiku di tuub ne na loolu bul ko def mukk waaye it bul nuur ci ay bàkkaar di continuer rek di def ay bàkkaar ba ñu tuub loolu bul ko def yooyu yëpp kon ay mbir la yoo xam ne doomu aadama bi war na koo moytandiku waaye war na koo bàyyi xel war a bàyyi xel màggug suñu borom bi subhanahu wa taala ba lépp loo xam ne moom lay def ni ay njuumte bu ko defee ba pare mu wëlbatiku daal di koy tuub waaye nag tuub mbokk yi waxuñu nga def ñaawteef ba pare wëlbatiku di ca dellu waaye nag bëgg nañ su fekkee ne nit ki dafa tuub itam bu tuubee la nga xam ne moom la tuuban muy ñaawteef foo xam ne def na ko mu bañ caa mu bañ caa dellu mu bañ caa dellu waaye bu wëlbatiku mu wëlbatiku itam daal di tuub ñaawteef fa nga xam ne moom la defoon ndax loolu suñu borom subhanahu wa taala daf ñu koo aaye moo tax mu ne innama tawbatu ala llahi lillazina yacmaluuna suua bi jahalatin summa yatuubuuna min xaribin fa ulaika yatuubu llahu alayhim wa kaana allahu aliman xakima nee na tuub dëgg-dëgg daal buñ koy wax mooy ñi nga xam ne dañuy jëf aw ñaawteef ci ak réere maanaam dañuy jëf aw ñaawteef te xamuñu ko waaye nag suñ paree ca loola rek buñ ko xamee rek ca xam gañ ko xam rek dañuy wëlbatiku ca saase daal di tuub nee na ñooñ mooy ñi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala dina leen jéggal waaye li nga xam ne moom la ñu def ci ay rëcc rëcc suñu borom bi subhanahu wa taala dina leen ko jéggal kon loolu liñ ci mën a dégg rek mooy nit ki suy defee bàkkaar ci ak ñàkk a xam na wëlbatiku daal di koy tuub fa saase saase waaye tuub gën a ànd ak maa jazmi yi ànd ak dogu fii adamil awdati ci wala fii adamil awdi ci ñàkk a dellu ca bàkkaar ba ila isyaani rabbihi jëm ca mooy boroomam bi subhanahu wa taala allazi ma xam ne yoot yi mooy joxe al ila ak ay xéewal kon doomu aadama bi itam su tuubee ba pare na dogu ci bañ a dellu ca bàkkaar ya nga xam ne moom la def mooy ga nga xam ne moom la mooy suñu borom subhanahu wa taala na dogu ci bañ caa dellu na dogu ci bañ a dellu ca bàkkaar yooya waaye na dogu ci bañ a dellu ci mooy suñu borom subhanahu wa taala comme li nga xam ne moo ko jàppoon ba mu def bàkkaar wala moo ko jàppoon ba mu def aw ñaawteef wala moo ko jàppoon ba mu mooy suñu borom subhanahu wa taala comme loolee njuumte la woon bu paree na dogu ci bañ caa dellu waaye su dogoo ba pare ci bañ caa dellu nag yàlla dogal mu defaat lu ni mel bu mu tax mu naagu waaye na tuubaat bu tuubaatee ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu jéggal ko kon tuub lu ama am solo la loo xam ne nit ki war na koy baril ndax nit ki muy doomu aadama bi mënta ñàkk di def ay bàkkaar ndax suñu borom subhanahu wa taala moo ko binde noonu te bu fekkoon ne suñu borom dañoo bind ñu wàcc ci kaw suuf te duñu ko tooñ di ko jéggulu bu boobaa mën na fee far ñi nga xam ne ñoo fi ne indi fi ñeneen ñoo xam ne dañ koy tooñ di ko jéggulu ndax suñu borom subhanahu wa taala buur la bu màgg bu bari yërmande waaye bu mën a jéggale boo xam ne dafa bëgg jaam ñi di ko tooñ di ko jéggulu mu leen di jéggal waaye di ko balu mu leen di baal kon loolu mooy suñu bindub tey ñuy taxawlu foofu rek di tuub bu baax di jéggulu lu ci dëng rek ñu xam ne ci suñu matadi la lu ci jub ñu sante ko suñu borom subhanahu wa taala di wax ne in uridu illa al islah ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh